jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite daleen a jaam ci seen émission buzz yu web comme ni ñu koy defee rek chaque ayu bés yu weesu dañ leen di indil xibaar yi ci gën fës daal leen koy euh, faram-fàcceel tey ci aljuma bi yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru euh, février mu mel ni rek euh, malaanu kër kirlaay ki nga xamante ne moom moo di député Ousmane Sonko yëkkati nañ ko ñañu teewaloon ca penc ndaw réew ma def nañu seen séance plénière ngir mën a xool rek lan mooy conclusion commission ad hoc xamante ne moom la ñu chargé woon ñu statuer ci demande de levée immunité parlementaire bu euh, député Ousmane Sonko euh, moomu lee mu mel ni rek euh, député boobu nga xamante ne dañ ko accusé viol répétitif ak menace de mort te ki ko jiiñ lool nag di masseuse bile di Adji Sarr député ba mujjee nañ nag yëkkati malaanu kirlaayam mu mel ni rek député yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci opposition bi ak les non inscrits ñoom daal dañoo rek lànk ba tëdd ca naaj ba ne duñu participer benn yoon ci vote bi nga xamante ni moom moo fa amoon amoon ñu fàttali rek euh, résultat wu euh, vote bi daal di joxe rek euh, ñaata wala bokk lim bi nga xamante ne nii ci ay député ñoom ñoo voté rek pour li nga xamante ne moom moo di lever immunité parlementaire ou Ousmane Sonko ñoom nag ñu ngi toll ci quatre vingt dix maanaam juróom fukk ak juróom ci ay député daal ñoom ñoo voté ngir ñu yëkkati malaanu kirlaay ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko benn député moom moo voté non yeneen ñaari nag dañoo abs absteniru maanaam rek joxewuñ ci benn yoon seenub euh, xalaat waaye ñu fàttali rekk ne euh, que que ça soit ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko am déet la mu waxoon ca euh, démb rek ba mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom moo di rek du wuyu ji benn yoon fi nga xamante ne moom moo di juge ba tey nag lépp lu ñeel commission ad hoc boobule mu mel ni rek lépp lu ñu fa defoon umpul la woon ci ñun waaye nag ki nga xamante ne moom moo di député Mame Diarra Fam fa mujj rek daal di jël téléphone am daal di def rek direct ci euh, page Facebook am ngir mën a xamle rek askanu ka Sénégal lan moo doon xew euh, fële ca assemblée nationale ginnaaw bi nga xamante ne nii taskati euh, xibaar yi dañ leen tere ne duñu assister ci vote bi nga xamante ne nii moom moo amoon fële ca pencal ndawu réew mi. Euh, ñu desandi ba tey ci affaire Sweet euh, Beauté mu mel ni rek nit ki démb la Adji Sarr daal di euh, jàkkaarloo ak juge bi ci boori 11h mu mel ni nag audition ba ma nga démarré ci boori 11h35 daal di nag duré juróomi waxtu moom nag ginnaaw bi nga xamante ni nii jàkkaarloo na ak juge bi ci la def rek ay révélation yu doy waar yoo xamante ne nii mën na gën a rek metti la dossier bi nga xamante ne moom moo ko opposé ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko Adji daal di ñëwaat ci euh, détail yu euh, viol bi nga xamante ne nii wax na ni moom la euh, subir daal di nag joxe ay réponse yoo xamante ne nii ca la ñu wax xaw na choqué ki nga xamante ne moom moo di juge d'instruction bu huitième cabinet boobule. Euh, bokk na itam ci euh, révélation yi nga xamante ne ni euh, moom la soxna soosale di Adji Sarr di def moom mooy rek joxe ay indication ak signe ci physique nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko tey waxaale rek ne yàkkamti na bu baax a baax di jàkkaarloo ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ngir rek mën a gën a xuus ca mbir mi nga xamante ne ni moom moo ko rek opposé ak ki nga xamante ne moom moo di njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ci mbiri Adji Sarr nag la ñuy desandi ak yéen ginnaaw bi nga xamante ne démb jàkkaarloo na ak juge bi la joxe waatoon comme xibaar rek moom moo di soxna soosule ba muy ñëw fële ca palais de justice ab V8 moom moo ko fa wàccee nag ak it ay nit yoo xamante ne nii escorté nañu ko waaye nag loolu teewul benn yoon yenn ci ay taskati xibaar wala ak ay nit yoo xamante ne jot nañoo jël nataalu ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr ba tax na nag am na benn photo boo xamante ne nii gis nañ ko ci mu sol rek ab yére olof bu couleur jaune daal di ko ci gis rek muy euh, duggaat ca oto ba ko indi woon daal di rek euh, dellu fi nga xamante ne nii fa la ñu ko euh, làq ndax it nag ñu fàttali rek ne ki nga xamante ne moom moo di avocat wala benn ci avocat di wuyu ci turu Maître El Hadji Diouf wax na ne rek ki nga xamante ne nii moom moo di aji saar dañu ko escorté te jamono ji rek mu ngi sous haute surveillance pour rek li nga xamante ne moom moo di wàllug kaaraangeem. Euh, ñu tëj nag pàcc boobu daal di dugg ak yéen nag ci mbiri coronavirus fii ci réewum Sénégal mu mel ni rek ni ki euh, démb la njiital réew mi président euh, de la République monsieur Macky Sall daal di rek vacciné wu en direct ginnaaw bi nga xamante ne nag def na lool wala jël na dose vaccin wam boobule la def nag ab déclaration bokk na nag ca la mu xamle moom moo rek ñi nga xam ne ñu ngi sikki sàkk ni vaccin bi baax na wala baaxul ba tax na nag ñu ne duñu laale ak vaccin yooyu la ca président xam xamle rek moom moo di bu ñu nanguwul jël euh, vaccin yooyu le dina ko jël rek daal di koy jébbal yeneen dëkk yoo xamante ne ni euh, soxo euh, nañu ko mu doon nag ay kàddu yoo xamante ni askanuk Sénégal gi bëri nañu bëri ñoo xamante ne ni rafetlu ko ndax di ko laaj rek ndax vaccin yi suñu dërëm lay jar donc nag warul wax benn yoon li mel Euh, ñu ñëw ak itam ci euh, pàcc yi gën am solo ci déclaration bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko daal di def euh, ni ki démb mu mel ni rek bokk na ca la mu xamle ñi nga xam ne ñoom ñoo di comploté ngir rek mu dugg kaso daal di nag jël dossier de viol bi daal di koy jëmale kanam moom wax nañ rek mënuñ koo jàppee ci dossier bi nga xamante ne nii moom lañ ko takkal jamono ji parce que jàpp nañ rek dossier bi dafa vide te amul benn cohérence ba tey nag ci la mu xalaat moom moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di comploté comploter contre lui jamono ji euh, la ñu bëgg rek euh, mu def euh, mooy rek mu avouer askanuk Sénégal ne jot na jote ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr ngir rek mën a ñàkk li nga xamante ne moom moo di crédibilité am bokk na itam ca li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko daal di wax ci déclaration bi nga xam ne moom la def ni kiy démb ba mu jàkkaarloo ak taskati xibaar yi wax nañ rek fan yi ñu génn yëpp ab camion daal moo doon pointé ci buntu këram di ko def li nga xamante moom moo di ab espion espionnage moom nag mu jàpp ne loolu violation vie privée la te nag bu ca jugee dina dem rek euh, ci yoon daal di nag euh, porter euh, plainte ba tey nag ci pàcc yi gën a am solo yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko daal di wax ci déclaration bile moom nag daanaka deseetul dara ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall parce que jàpp na ne ki nga xamante ne mooy suñu njiitu réew daal ab bokkat la maanaam rek amut fit ngir mën a def yenn yi te sax nag buy dem bay def dafa am rek ñu muy yoon ni nekk seen ginnaaw ñooñu nag di ko uh, defal moom nag mu jàpp ne loolu daal nekk loo xamante ne ni mu ngi koy uh, rafetlu uh, tey wax rek ne kii di président Macky Sall nekk na rek ab nit boo xamante ni nii daanaka daal la muy def rek amu ca benn yoon ab fit ba tey nag Sonko di wax daal di nag indi ab xibaar bu ñeel rek borom kër ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye nekk propriétaire salon de message boobu li di suite beauté la mu xamle waaye rek ab taskatu xibaar moom moo ko rek baaxee ab euh, xew-xew te mooy rek ki nga xamante ne moom moo di monsieur Coulibaly moom di borom këru euh, madame Ndeye Khady euh, Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ne nii génnoon na ngir rek jëndi meew lañu ko rek tàmbali di sànni ay xeer ba mu am ci nag ab blessure ouverte ca bopp ba loolu nag di firndeel ne rek monsieur Coulibaly moomu dañu ko rek agressé Euh, ci tënk daal li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko wax moom moo di rek kile di euh, président Macky Sall la muy def euh, rek jamono ji lépp ay mbébétam rek moom moo di fexe na mu ko tëjee kaso daal di koy rek daaneel waaye nag wax na ni du ko ca bàyyi benn yoon daal di nag évoqué li nga xamante ne moom moo di constitution bi la mu bind rek ci droit de résistance à l'oppression bi nga xamante ne nii moom individuellement am na ko tey wax rek ne da koy def te bañu ci dara nag ndaxi nag lépp rek ci bakkanam la ko tekk daal di ne rek du nangu benn yoon li nga xamante ne ni xoqatal bi nga xamante ne ni euh, moom la ñu ko euh, bëgg a def ci euh, jamono ji xibaar yi tey bokk na itam ca la ca gën a fës mbiri people mu mel ni rek ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Gueye ak boroom këram di Papa Boy Djiné nekk ab bërikat la ñu xamle nag seeni mbir rek moom moo di seenub sëy jamono ji am na ay yëngu-yëngu ginnaaw bi nga xamante ne nii kii di Ndeye Gueye laaj nañ ko lekk lépp lu ñeel wàllug vidéo lu motif Banaya bi nga xamante ne moom la ñu euh, partagé woon ci réseau euh, sociaux yi euh, mu mel ni rek ginnaaw bi nga xamante ne wootante nag ki nga xam ne moom moo di Adamo moom mi nga xam ne tamit jël na vidéo ba daal di koy dugal rek ci compte Instagram moom la mu ko xamal rek moom moo di ginnaaw bi nga xam ne ba mu xamee ni borom këram bëggul ay coow warul woon wax benn yoon ci sujet bu mel ni nga xamante ne nii moom la ñu ko présenté maanaam rek ki di Ndeye Gueye warul woon àddu benn yoon ci problème bi nga xamante ne moom la Ndeye Ndiaye Banaya di dundu jamono jii. Euh, ñu ñëw ak yéen nag ci euh, compte rendu gendarme bi nga xamante ne ni euh, yónni woon nañu ko ci kër ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ngir mu jébbalu ko convocation commission ad bu pencal ndaw réew ma ngir ñu mën a saytu ndax dañuy yëkkati malaanu kirlaayam mu mel ne nag la mu xamle nag ci compte rendu moo di rek jotoon na dem ci këru ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko mu recevoir ko nag ca saalam waaye nag jotul jël dossier ba sax nag bay nangu defee convocation bi nga xamante ne ni moom la ñu ko joxoon ngir mu dem rek fële ci assemblée nationale wuy ji commission ad hoc ngir rek ñu mën a xool ndax dañuy euh, yëkkati malaanu kerlaayam waaye nag ñu fàttali rek ne euh, ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko la mu waxoon ci déclaration am rek euh, moom moo di ñu yëkkati malaanu kerlaayam waaw wala déet du nangu benn yoon daal di rek jàkkaarlook justice ndax jàpp nañ rek procédure bi nga xamante ne ni moom la ñu ko defee dafa rek am ay njuñ mbokk internet yi xibaar yi noonu la toll woon na cant ak ngërëm ñaan leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di jaajëfal ñi fare woon ci xarala bi ngir ngeen ñuy mën di dégg wala ngeen ñuy gis xibaar yi dina wéyandi suñuy plateforme digitale sans limite tv ak sans limite sn point com di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf